ala man wala ya wala so sadi ko bëggee ñu waxtaan ceeg yéen li jëm ci wàccaayu màggal gi loolu la ñu wax fu ñu toll euh, xam ngeen ne lii xam ne mooy gën di aada ci réew mi mooy màggal yee gàmmo yi ci dëkk yi nga xam ne moo gën a màcc ci ak mageel ne nañ ko mën a tuddee ci dëkk yu mag yi ci kër yu mag yi am na lu ñuy tuddee CLD am na lu ñuy tuddee CDD am na lu ñuy tuddee CRD am na sax euh, réunion national ministère intérieur waaye màggalug Daarul Mooti euh, mu ngi yem ci CRD bi ñu def ànd ak euh, euh, gouverneur bi nga xam ne moo nekk ci région Louga ñoom dañuy wàcc si Daarul Mooti defe ko foofu ki nga xam ne mooy préfet Kébémer day wàcc si Daarul Mooti ñu defe ko foofu loolu ci jamono Serigne Modou daaw Balla mooy am ba léegi jaar ci Serigne Abdou Khoudoss jaar ci Serigne Cheikh Khady ba ak ci Serigne Abbas noonu lañ koy defee def nañu ko Serigne bi itam def na li nga xam ne ña ko jiitu noonu la ñu daan def nga xam ne képp koo xam ne yow la yàlla dénk réew mi ak ñi lay jàppale dinañ la bind ay lettre won la ne la fii la ñu lii lañu soxla woo lii la ñu soxla woo ngir xam ne lu ci bare bari ñoom la ko yoon teg ñoom la ko warteef bi teg ngir euh, ñoo jiite mbooloo mi euh, ci réew mi fépp foo xam ne dara dafay xew ñoo fa war a jiitu ñoo war a taxaw li nga xam ne mooy wér-gu-yaramu doomu aadama yi li nga xam ne mooy wirgi gi mooy mooy mooy kaaraangeel doomu aadama yi eh, lépp ñoo ci war a taxaw ak yeneen ak yeneen ci niñ ko xamee daal nga xam ne yi ciy gën a fës mooy eh, fexe ba am ndox du manqué eh, boole ca itam courant bi du du taxaw loolu yooyu yaar bu fekkee ne jiitu na day mel ne daanaka am nga 45 wala 40 pour cent ci li nga xam ne mooy liy gën a defar ak màggal ndax yeneen yee ca des bari na ci loo xam ne nit ki mënal na ko boppam. Euh, donte nga xam ne nguur dana ci dugal loxoom tëreewul am na ñoo xam ne euh, dinañ mënal seen bopp ci wenn wàll ba mënaale ñeneen loolu bi ñu ko defee ba léegi sëriñ bi joxe lettre yi nga xam ne mi ngi ko tàmbalee ci kii di président de la république ba mboole ministre yi nga xam ne seen loxo war naa dem ci màggal gi euh, kenn ku ci ne jot nga sa lettre ñu def CRD fii may waxee ak yéen ki nga xam ne mooy ministère bi nga xam ne moo yore wàllu environnement moom la ñu soxla woon ci moom def na ko ba weer wi door a teru ba mu mat sëkk li soxla woon ci moom def na ko euh, ki nga xam ne mooy ministère bi nga xam ne mooy hydraulique euh, fii may waxee ak yéen euh, forage bi nga xam ne mooy quatrième forage bi ñu bënnoon ci mujjug Serigne Cheikh ji nga xam ne dañ koo génnee de génneegul woon boobu dañu taxaw ngir génn ko ci bëccëg ba léegi maa ngi jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk ba Darou ti ngir fi nga xam ne fi la ñu war a taxawal armoire bi nga xam ne mooy génnee pompe bi nga xam ne moom la ñuy def ci forage bu bees boobu naka lañ ko war a tabaxee ak yooyu incha allah ci ñaari fan yi danañu ko taxaw jafe-jafe biñ ci amoon mooy euh, tiwo yi nga xam ne mooy tiwo central bi nga xam ne moo war a jóge ci forage bi F4 ñëw ba ci jumaa ji fekk fii ñetti forage yi ko jiit woon yooyu la ñu jotagul woon waaye am nañu yaakaar ne dinañu ko jot euh, feeg ñaari fan ba tax na ci fii ma mën a fii ma mën a natt tolluwaay ci ni ma ko daan faral di natt bàyyi woon naa ko sax waaye ren dinaa leen ko wax mooy e, ci li ma jot a gis fii may toog di wax ak yéen gi suñ ci soxla woon téeméer jàpp naa ne amaguñ ci sax 30 30 pour cent amaguñ ko ci e, loolu nag e, dinaa ko wax ngir ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi ci di premier ministre am ministre bu nekk lettre bi la sëriñ bi bind boo demee ba ca suuf sama numéro téléphone ma nga ca suuf te gisaguma ci benn ministre bu ma woo ci min ci ci numéro boobu ne ma jot naa leetaru sëriñ bi li mu doon sàkku nanga mag na amul benn ministre boo xam ne jot nañ ci kàddoom ci loolu loolu nag suñ ko dee wax mooy dañu ko leeral ngir kenn ku ci nekk da yor say bëkk néeg yor say ñu lay jàppale xëy na lee su fekkee agsi na ci yow ca na nga nga ko war a jote jote woo ko ne wala ñu ko ne màggalug Daaru moo ti 23 lay doon te xam nañ ne alterné bii ñu ñëw euh, euh, fête lay doon léegi boo ci génnee gaaw ak dibeer bi ak ak altine ji muy feet lan moo ciy des loolu nag ci administration boo ko dee xool am na taxawaay yoo xam ne soo ko ci manqué soo moyiwul dina bari lu lër ci waaye nag euh, euh, gouvernement dafa war a am lu ñu tudde solidarité gouvernementale solidarité gouvernementale boobu su fekkee ne am na euh, jàpp naa ne kenn ku ci nekk soo déggee suñu kaddu ak ñii ci jot a waxal waxtaan naa ci ak Omar Youm mi nga xam ne mooy directeur cabinet au président de la République ma ne ndax man li ma defoon daaw dinaa ko man ren daaw damaa waxoon ne dama lay boole ci membre comité d' comité d' organisation bi ren nag bëkk néegu borom borom réew mi nga ki yàlla dénk réew mi eh, ndax dinaa ko man ren mu ne ma mu ma ren laa koy daq léegi nag wan naa ko yooyu yëpp ne ko nag nañu ci taxaw te xam naa ne euh, yéene ji nga xam ne moom la kii di président de la république am ci sëriñ bi am ko ci Darou Mouhty jàpp naa ne eh, yooyu ma wax yëpp fi ma toog di wax ak bu ñu ci eh, bu ñu jëlee gaaw bi ak dibeer ji ak alterné ji feet defe naa ne buñ seetee buñ buñ ko weesoo incha allah 30 pour cent yi ma wax dinañ ko jéggi bu baax a baax waaye nag yaakaar la joo xam ne maa ngi ko teg ci li ma jokkoo ak ki nga xam ne moo di directeur cabinet président de la république te muy ko xam ne dama daan faral di wax ne moom eh, gis naa ne eh, amul frontière digganteem ak yeneen ministres yi ci ba mu nekkee ministre ci ci ci yeneen département yi dina rafet ma wax leen ko fi ndaxte euh, adduna dafay toll foo xam ne li Serigne Touba waxoon dafa wax ne yàlla dañ koy yëg adduna dañ koy yëgoo moo tax euh, yéen ñi nga xam ne yéenay bokk ci ci comité d'organisation bi moo xam communication la moo xam culture la moo xam leneen la kenn ku ci nekk dañuy gis ne buñ ci tolloo kenn ku ne bu mu yem ne sama taas fii la yam sama compétence fii la yem li ñu may liggéeyloo fii la yem loo gis loo xam ne jàpp nga ne Eh, Jili Sall moo ko waroon def Abou Sall mën na ca dara wala sëñ Xaadim mën na ca dara wala sëñ Abbas mën na ca Basiru Gànnaar ne kenn ku ne naqol ne bul wati bul wati benn ay bis moo des bul ti yamukaay eh, fu ñu yëglu lu tag nañ seet nuñ koy tàggantee eh, yaakaar nañ ne daal ni mu ni ñu ko ni ñu ko gisee ak loxo yi ñu ko bàyyi biig ak tey xalaat nañ ne incha allah sunu borom mën na cee def ndimbal te bi ci gën a teew gën cee gaaw mooy affaire mbirum ndox mi loolu ma la wax léegi nga xam ne jàpp nañu ne incha allah fekk alterné dinañu jot ci tuyau yooyu nga xam ne moo koy jëf euh, centrale bu mag bi dugal ko ci centrale yi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji ñeenti forage yëpp daje foofu te forage boobu nekk forage boo xam ne euh, mboolem tund wi amuñu fi benn capacité bu toll noonu mi ngi fi door am ci ci Darou Moukhty Touba rek nga fi gis bu mu tollul capacité foofu kooku suñu yàlla mayee ñu fexe ba dugal ko ci réseau bi yaakaar nañ ne bu fekkee ne euh, benn jafe-jafe amul euh, xëy na lee ak camion yi nga xam ne dañ ko indi hydraulique ak base souple yi euh, ndox mi dina am tuuti dina am ndimbal ci wàllu woowu waaye loolu lépp ay yaakaar la ak ay xalaat yoo xam ne mi ngi ci kanam lay baax rek mooy ñu nekk ba teg ci loxo di di yaakaar ne itam yeneen yeneen yi nga xam ne séentu nañ ci ñoom ay ay ay ay ay ay taxawaay ministre intérieur ca ca ca ca base ya ministre intérieur ci ci tant yi euh, ak ñi nga xam ne ñooy euh, waa économie finance euh, ndax douane yi li nga xam ne moom la ñuy jàppalee njaboot gi nga xam ne dañuy màggal si biñ ci gën a ràññi waxoon naa ko ci appel bi bi sëriñ bii def mooy ñi nga xam ne ñooy jóge Mauritanie ñëw ba Rosso Rosso Sénégal foofu lañ ci te waxtu wane daanañ ci am ay ay ndimbal rawatina bi ñu xamee ne Pape Ousmane Gueye mi directeur général u jàpp nañ ne am na lu mu séddoo ci Darou Mouhty xëy na lee lu mu fekkoon ñeneen daan ko ci def dina ci gën a taxaw lu mu lu mu gën a baax ndegam dañ noo wax nag ne nañ leen wax fu ñu toll ci wàccaay yi e, e, danañ leen wax ne nii lay tëddee fii la ñu ci toll buñ ko weesuwaatee suñu e, su ngeen ko soxlawaatee dinañ leen ko mën a defal wala ñu boole leen nag ñenn ci ñi xam ne ñoo yore wàllu organisation bi ñu ñu ñu wan ñu ñu wax leen fa xam ne fa la ñu fa la ñu toll kon euh, ginnaaw bi ñu doolee santaat ñi nga xam ne ñoo nu fi dajale tey muy conférence bi nga xam ne moom la ñu doon def fii te ñi nekk Ndakaaru ñëpp ànd kook euh, comité bi ànd kook euh, bokk yi ànd kook njabootu sëriñ bi muy njabootu borom Daaru Muxti yëpp sant ginnaaw bu ñu leen fetlewaate suñu cant tolluwaayu màggal gi foofu la moo dinee su ma ko doon xool daal yaakaar naa ne fi mu nekk nii mënaguñoo jéggi mukk 30 euh, pour cent. lu waral loolu defe naa ne laaj boobu euh, ña ñu yónnee leetar yi ak seen kilifa yi ñu ko jaarale ci ñoom ak gouverneur bi nga xam ne effort bu nekk def na ko def naa ne loolu buñ ko dee buñ ko dee laaj ñooñu lañ ko war a laaj parce que kenn du ne jotuma sama lettre sa sa lettre te nee kenn ci ñoom ku woo. Euh, te yaakaar naa bu ñu woo woon sëriñ bi numéro sëriñ bi moo ne ca kaw sama numéro moo ne ci suuf xëy na léegi bu ñu waxoon sëriñ bi ndax sëriñ bi ko ci wax dina kon yaakaar naa ne boobu laaj ña ñu adressé te seen tontu leeragul buñ ko doon laaj ñooñu lañ ko war a laaj waaw nag la ñuy xam nag liggéeyu borom daaru moo tax sëriñ Touba keroog lay feeñ nag sëriñ Touba moom li mu defal borom daaru muti daraam du tak ki ciy def ku nekk da nga ciy barkeelu ñu xam ne barkeelu ngoo ci yalla teg na la ci euh, Euh, li nga xam ne mooy liggéey doomu aadama ci réew mi ñu war koo bokk ak ñëpp waaye su boobaa it defe naa ne amul lenn loo xam ne dana manqué te ñu yaakaar daar Darou Mouhty nekk bi kooku du am moom. bonjour tout le monde je vais essayer rapidement de de synthétiser donc le, le message que Serigne Bassirou Abdou Khoudos qui le porte-parole du du du, du khalife euh, de Darou a délivré à votre rencontre donc. Euh, Euh, ce message donc est relatif aujourd'hui à l'état d'avancement donc des travaux préparatoires euh, Magal de Darou Mousty. Euh, le premier point donc concerne le fait que donc dans, dans le cadre de l'organisation de ces magal, donc il est de tradition de tenir des CRD avec les autorités politiques administratives pour adresser toutes les requêtes nécessaires au séjour des pèlerins lors du magal notamment dans le domaine de la sécurité, de la santé, etc. Cela a été bien fait, comme, comme d'habitude, et les correspondances donc ont été envoyées à toutes les autorités pour euh, matérialiser ces, ces demandes. Euh, à l'heure donc euh, où, où, on vous parle, euh, sur le plan de l'environnement, donc le ministère de l'Environnement quand même a pris toutes les dispositions nécessaires par rapport aux demandes qui lui ont été adressées. Le second volet important concerne donc l'hydraulique. Dans ce domaine-là, il a un quatrième forage donc d'une capacité euh, jamais, jamais encore égalée, en tout cas euh, au niveau de Darumousti. Peut-être le forage de, de Touba a une capacité comparable. Donc ce quatrième forage est en cours de finalisation. Et euh, les derniers travaux, on l'espère donc, pourront être finalisés d'ici le Magal qui est prévu le lundi 23. Compte tenu de tout cela, donc Serine Bassirou Abdoukdos, effectivement, a saisi le le ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, euh, pour euh, l'informer de cet état de fait. si aujourd'hui euh, il fait une évaluation des, de l'état d'avancement, des requêtes qui ont été adressées à, à, à l'État, euh, on peut considérer que seuls 30% de ces requêtes-là ont été satisfaites. ce qui est loin donc de, de, convenir euh, par rapport à tout ce qui doit être fait pour l'organisation de cet euh, événement euh, qui, rappelons-le, quand même est le second événement Magal de Touba, pour le, pour le en tout cas pour les Mourites. Euh, donc, euh, monsieur, enfin, Serigne Bassirou Abdou espère que Étant donné que le, le, ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République a été informé de cet état de fait, on espère que d'ici la semaine prochaine, toutes les dispositions nécessaires seront effectivement prises pour que ces problèmes-là soient réglés. En sachant que c'est quand même un événement qui attire des milliers, voire des de milliers de pèlerins au niveau de Darumoussi. Et ces derniers ont besoin de toutes les commodités nécessaires à leur séjour, notamment sur le plan euh, alimentaire, la santé, la sécurité, l'eau, etc. Euh, donc aujourd'hui, euh, pour, pour, pour, terminer, disons qu'on a tenu donc euh, aujourd'hui une conférence pour partager quand même cet événement avec la communauté euh, Mourid qui est installée à Dakar. C'est une première pour le Magal parce que d'habitude cet événement était organisé surtout au niveau de Daroussi et de Touba. Euh, et nous espérons justement que, euh, euh comme, la, comme il l'a rappelé, Euh, l'œuvre de Serigne Touba euh, est, est, toujours marquée par le caractère indélébile euh, d'une progression qui ne, qui, ne, qui ne cessera jamais. Donc nous, nous espérons, compte tenu de l'attachement, en tout cas que manifeste le président de la République vis-à-vis -vis de la ville de Darmousti et de l'attachement que le directeur de cabinet, donc le président de la République aussi, a toujours exprimé vis-à-vis -vis de cette cité, euh, que toutes les dispositions seront prises afin que ces problèmes soient, soient, soient levés avant l'organisation du Magal, qui, je le rappelle, est prévue le lundi 23 et la cérémonie pour le mardi 22. Voilà, je crois, la synthèse du, message de Serine Bassirou. Vous la même réponse qu'a donnée euh, Serine Bassirou à savoir que, rappelons, personnage le plus important du mouridisme. Donc on, ne peut, on ne peut pas nous envisager l'hypothèse que cela arrive. Et en tout cas, nous prendrons nous, toutes les dispositions nécessaires pour que ce, le Magal se passe très bien. Je le rappelle encore, hein, euh, en dehors du Magal de Touba et du Magal euh, de, de, de, de, son propre village, c'est le seul Magal durant lequel le Khalif général des Mourites séjourne dans la ville pendant plus d'une semaine. Donc c'est pour vous dire c'est c'est un magal euh, auquel il donne une importance aussi grande que le magal de Touba. Donc nous espérons juste que il s'agit en fait de euh, enfin de causes que nous ne saurions expliquer mais qui vont être euh, rectifiées rapidement. Résumer ça rapidement, je dirais que je crois il a été le premier compagnon de Serigne Touba et le dernier. Il a il a il a été l'une des rares personnes euh, à avoir reçu toute l'éducation religieuse. Donc c'est Serigne Touba qui lui a enseigné le Coran, les sciences religieuses et l'arabe. il l'a formé de bout en bout. Hein? Et lorsque Serigne Touba a été arrêté donc en 1895 et exilé au Gabon, euh, il lui a confié les destinées de la Mouridia. Et il a eu donc les, les, les enfants les plus âgés du, du notamment Serigne Mohamed Moustapha qui a été son premier khalif, Serigne Falilou Mbaké son second et Serigne Mohamed Lamine Bara. Euh, il a donc euh, géré euh, la communauté durant toute le, la période d'exil de Serine Touba. Et il a été aussi à l'origine des de, de, de, travaux les plus importants que, le, que, le, que, que Serine Touba a eu a recommandé durant son existence. Et il l'a accompagné jusqu'à là, euh, le retour du saint homme à Touba, Et il a continué donc à encadrer sa famille jusqu'à sa disparition en 1945. Donc je dirais que il est le frère de Serigne et son bras droit. Et il est vraiment le modèle que Serigne Touba a, a, vraiment montré à tout le monde comme étant le modèle parfait du, du Et dans toutes les lettres que le cheikh lui adressait, il commençait par, par dire je, je, Assalamu alaikum, donc bonjour à toi. Cheikh Ibrahim, le Mourid Sadiq. c'est comme ça qu'il qu qu le nommait. Donc c'est pour dire qu'il reste, doit rester un modèle pour tous les Mourides et pour tout le Sénégal. Voilà.